waaw musique Mandenk moo mel noonu musique Mandenk foo ko déggee rek di nga xam ne lii musique Mandenk mhm. ba pare ma dugg nag Côte d'Ivoire mhm, dugg nga Afrique un peu partout on peut dire waaw mhm. ma dem Congo ma dem Gabon ma dem nag law la ca tabarikalla macha allah muy intégration africaine lii son bi soo ko foo ko déglu rek xale bu ndaw sax mën na ko def si si si poupée décalé pourquoi pas ji bi moom kay moom kay africain africain nga ba mu saf ma dem nag def tournage bi Abidjan. Uh-huh. parce que nit ki loo moom rek jox ko. bu ba décalé pour cent Abidjan la. Uh-huh. ma dem def tournage bi foofu. Uh-huh. ànd ak DJ Pak. macha allah bu ma ko génnee ba léegi su gudd ak sama téléphone ngi sonné. jibi daraame yow yow da te mën nga wéy fii. léegi te mën nga jarson yi ma ne ko yéen baal leen Mm. corona bi daf maa kor kor ma loolu moo tax sax eh, mu gën a neex et puis dañ koy noter souvent ci musique mondaine. Mm-hmm. d'habitude euh, wéy bi dafay am rythme bu baax a baax. aussi ñu koy noter. Mm-hmm. Mm-hmm. Aïcha euh, Ziggy Bamba Ibou Ndim ubbi nañu laaj yi <laughs> ubbi nañu laaj yi. Facebook live bi. di ko féliciter parce que c'est pas évident nga mm. nekk artiste ñu xam na si benn signature nga jékki saay rek décider génn sa zone de confort pour mm-hmm. essayer leneen euh, yaakaar naa ni essayer nga ko et puis ça a réussi félicitations pour ça est-ce que alors on peut s'attendre à ce que demain nga def ndombolo wala wala leneen en fait lu nekkul coupé décalé bi nga laal nii mm-hmm. mais pourquoi pas <coughs> loolu la wax sànq ma ne ko musique mandingue dafa vaste mm-hmm. beaucoup de réalisations musicales mën nga koy musique man dénk te alhamdulilah rabbil alamin loolu je crois que ma def naa conservatoire def naa école des arts jàng naa musique balaa may nekk sur terrain damay jàng musique kon nag xaar ma rek nga déglu comme bii nga déglu amaana dans mois de février maa la jox promettre boobu gis ma beneen façade Mm, incha ah, de boo ko waxee nañ ko gëm ndax nee ku la jox euh, ndékki ne la añ baa ngi ñëw moom da nga koy gëm. Euh, jibi man moom sama laaj euh, dama koy laaj ci li nga xam ne tey ji moo nekk programme yi nga xam ne da nga koy dem di wuji say nawle ku si mel ne tey benn Ibou Dim mën na xewle woo la te du bambara déggul li ngay làkk mais day am envie pour nga teg sa orchestre indil ko benn facette bu bees te yemoo rek ci woyu Euh, mandeng bi da nga ciy dugal ay ay taasoog da nga dugal yu koy neexal su ma paree si loolu tamit damay ñëw ci li nga xam ne tey ji moo nekk foo type bi nga wax moo nekk euh, li nga xam ne tey ji moo nekk li nga xam ne moo moo gën a bees mm-hmm. réalisation yi soo xoolee clip bi sa xel day dem ci li nga xam ne mooy Fally Ipupa mm-hmm. ay Koffi Olomide donc exactement kan li nga xam ne tey ji mooy clip bi waaw doom nday xam nga d'abord euh, damay ñëw si faux type yoon faux type damaa liggéey woy bi soo xoolee même su ma koy playback sax damay kontaan ndax nag euh, ku def trois fois sem un trois fois sem deux nga lakk français <laughs> d'abord war ngeen ma tàcc <laughs> foofu ma assuré foofu ma ñëw fexe comme ñu ne ñoo Djiby Dramé sa olof sax leerul may jël woy bi traduire ko en olof pour ñu xam ne message bi mu jàll mm-hmm. man na ngi moom wax noppi parce que moom laa nàmp moom laa xam ba pare clip bi mu méngoo ku ko seetaan rek da ngeen ne ah Djiby Dramé de fooguñu ko fii. Mhm. mais c'est le travail fay Bamba. Mhm. liggéey rek. Mhm. bañ a gestu bañ a xaddi. ba pare chaque jour ngay jël recherche pour liggéey. imagine toi que sama réalisateur fii laa ko jëlee. ku may filmel mais Pape Didier Pape. Pape Didier man ak moom ñi dem ba Abidjan. imagine toi que. repérage bi on a fait trois jours repérage. xool endroit ñu ko war a defee. xoolal ah euh, Ibrahima boobu aussi maa koy félicité Pape Pape ndax nag un sénégalais bi expérience niveau international. ñi ñeneen di ko di ko defee. bu ko defee noonu kon Pape Didier mention nelawul. nelawul. xoolal xam nga mu ngi a jaaxal si tournage am. fajar na may ku mu musul def. trois heures ma quatre heures du matin. mu ne ma julli nga fajar mu ne ma jógal naaj bi am na. gis nga couleur naaj yi. Mm. am na jugal. Mm. ma ju fekk Abidjan ngi taw. ñu mm-hmm. xaar taw bi euh, wàññeeku. Mm-hmm. ñu ñu tournage bi. Mm-hmm. on a fait presque une bi. mais nag lu ma gën a bëgg si tournage bi bi ça c'est bien ba pare ni ma doon imaginer xam nga souvent ni ma xool trace. trace internationale. li may seetaan mu ne ko waaw waaw kon tey man maa ngi taraas. sama rêve. doon na seen TV teg na ko. waaw seen TV mu ngi nii di ko teg. oh sama rêve def na doon réalité. <laughs> macha mm-hmm. allah alhamdulilah rabbil alamin. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Bamba. fàtte naa benn question bu loo waxati parce que faute bi moom a ñoroon de. mooy sa diggante yi nga xam ne tey jii sa diggante yi nga xam ne mooy nekk. ah aussi ñi dañ lay engagé ci yeneen programme yi te dégguñ sax bambara. waaw <laughs> problème boobu laa am nag. Hmm. gis nga samedi ak dimanche jotee. Hmm. ñu bëri dañu ne Djiby Dramé yow dañuy soxla nga tegal ñu fi concert wala tegal ñu regroupement bi ma ne ko man sama samedi ak sama dimanche tellement ñoo xam ne bëgg naa leen satisfaire hmm. te yow Bamba yow dëggoo Djiby Dramé ni muy woy man bëgg naa Djiby Dramé woy sama mariage wala sama ngénte ma ñëw woy sama bambara sama soninke mais yow Bamba yow da kontaan ndax d'abord. woy bi dëggoo ko. Mhm. mais façon bi ma koy woyee ak lu may déggoo du ko woy. Mhm. ak animation bi ak neex-neex bi. Mhm. bamba yow sa bopp doo bëggul sama programme jeex. gis ñu la ñu ñoom aussi ñoo may jël samay coordonnées. di enchaîner. sama début man noonu laay commencé. bamba xam nga fan laa sant yàlla. man maa def apparition apparition ci écran. fekk kenn xamuma. Sénégal xamuma. kenn waxuma kenn dégguma rajo. sama premier édition laa nii di passé. en 2005. Mm. dañuy jékki-jékki rek gis lii si si écran ñu ne mm. kii mooy kan. Mm-hmm. Mm-hmm. maa feesal suraano mm-hmm. fekk génnuma écran sant yàlla. macha allah euh, lu loolu. mbar su musique bu may def dafa neex population ñu xam ne. demuñu dikkuñu mm-hmm. seen buntu kër lañ nekk seen biir kër lañ nekk ma leen béggal mm-hmm. kon su ma wootee ñoo ñooma wisi dëgg la euh, yaa ngi koy wax léegi la nuit du bazin peut-être bokk na ci sa ay emprent de production fii ci mm-hmm. Sénégal euh, bu la nit ñi euh, xamee bu baax a baax guddi yooyu tax ca la suñu yaay yi doon waajal sol cuub yu rafet yi takk or yi dem depuis un moment peut-être tu me diras que Covid bi joué na ci mais depuis un moment amul est-ce que yaa ngi xalaat une relance peut-être de de de de cette cérémonie yàlla may na ma benn teranga boo xam ne si Covid bi dama ne demee alhamdulilah. Mm-hmm. si sant yàlla di wax Covid jóge fi mais bés boobu dama ne Covid munoo ma. Mm-hmm. xam lu waral loolu le 24 juillet passé. Mm-hmm. Sénégal c'était 1200 cas. ma wootee la grande nuit du Bazin. parce que def naa presque deux ans def ma la nuit du Bazin. ma def samay affiche fekk kaay wàññeeku. jékki-jékki rek kaay monté. waaw. ñu julli mercredi. le jeudi vendredi samedi le 24 moo woon sama nit di basé King Fahd. par table entrée table un million. sama soppe yi sama waaso bu ma bokk muy Sonic ak Bambara yi. niveau international ñëpp a wàcc. pour assister la nuit du bassin parce que la nuit du bassin nag euh, euh, date boobu xam ne soo ko déggee rek.